ñoo ngi dalal euh, sëñ bi Souleymane Diallo euh, jiite ONG otra ñu lay euh, nuyu di la dalal sëñ bi Euh, Elisabeth ñu ngi lay nuyu di la sant di di la gërëm ci invitation bi. Mm-hmm. di ñuy waxtaan euh, waxtaan bii di am jamono ji nga xam ne ñoo ngay wax ne euh, diggante Maroc ak Sénégal am na ay migrants yi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan tey ji ban commentaire justement nga ciy def. waaw fan yee am na ñetti fan léegi dafa am ay groupe doomu Afrique mm-hmm. yu bëri. yu jékki-jékki rek song barrière Melilla hmm. yi nekk ci frontière diggante Espagne ak Maroc hmm. barrière Melilla yooyu nag euh, yàgg nañu euh, xale yàgg nañ ko song parce que bu ñu ko songee rek dañu dem biir Espagne hmm. bu ñu jàllee barrière yooyu rek ñu ngi biir Espagne donc yàgg na rey ay doomu Afrique bii pa aussi euh, xale yi dañu jug song ko bëgg ci kii ñu buuxoo ñu buruxoo ci biir buruxoo bi am na fukki ak juróom ñett lañu waxoon mais lim bi yokku na. Mhm. ñu ngi si yaakaar boo yegg na si fanweer doomu euh, Afrique. Mhm. Euh, trante doomu Afrique daal lañu ñu la ñu si suba bi ñuy waxtaan ak sunu naataango marocain yi. Mhm. ak di def recoupement sénégalais yi ñu xam. en tout cas daal nee ñu lim bi yokku na parce que tey am na ñetti doomu Érythrée yoo xam ne faatu nañ ci. Euh, tey jii justement ñoo ngi ne ay sénégalais bokkuñu ci ndax yéen am ngeen à votre niveau niveau information yu ci doy. waaw wax dëgg yàlla ba bi may waxtaan sànq sama ñi ma ñi ma ñi may jokkool foofu euh, yéegaguñu en tout cas yéegaguñu doomu Sénégal bu ci bokk. Mhm. nañ ko sante yàlla. Euh, lu demee nii ndaxte am na ay doomu Sénégal yu nekk foofu si si si Nador mais xamaguñu doomu Sénégal bu si bokk yëgaguñu ko gaal daal man ba bi may wax ak yéen nii dëgg yëgaguma doomu Sénégal bu bokk si buruxoo bi. Mhm. tey mhm. encore euh, li ni mel muy tiis bu métti bi nga xam ne dal na euh, africain yi mu posé waat problématique dem beeg dikk bi question migratoire laa ko mën a waxee nga jàpp ne lu tax ba tey ñun ñu toll fii. waaw xam nga nag man question migration tout le Euh, dafa am lenn loo xam ne boo déggee premier ministre Espagne. Mhm. di wax waxu migration bi muy wax waxu euh, buukoo bi am ni nee na ñoom dañu dal ci seen réew. Mhm. Euh, ay mafia yu nekk euh, euh, Maroc di di jaay doomu aadama yi ñoo ñoo dal ci seen réew. Mm-hmm. marocains yi tamit ne ñoom loolu dañ koy gëstu. Mm-hmm. man daal lenn laa siy naqarul te loolu moomu métti dëgg-dëgg. Mm-hmm. mooy ni que lan moo tax doomu Afrique yi la ñuy utiliser ci benn euh, xare te benn xuloo diplomatique boo xam ne diggante Maroc la ak Espagne te doonuñu ci dara ba pare suñu njiit tamit duñ ci wax dara jëluñu benn garantie pour protéger suñu doom yi nekk boor boobu man loolu lu may naqarlu la. dafa am lu ñu ñuul ci mbir mi. waaw am na lu ñuul ci mbir mi li ñuul ci mbir mi mooy ni que lu met euh, ñaari junni doomu Afrique munuñ jugandoo nii rek songa benn barrière jugandoo nii rek songa barrière am na lu nekk ci ginnaaw am na lenn lu nekk ci ginnaaw te loolu war nañ ko mën a leeral. Mhm. war nañu mën a xam lan moo tout temps rek Espagne ak Maroc bu ñu xuloowee tuuti rek sunu ay doom la ñu jël pousse leen ci barrière yooyu barrière yooyu rey sunu ay doom loolu daal war nañ ko saytu ba xam lan moo nekk ci ginnaaw loolu. ci saytu googule wax nga ko ci say kàddu dégg nañ ba fii léeg euh, tey jii euh, ni amul doomu sénégalais bu bokk ci mbir mi ndax loolu dafa am tamit justement lu mu wone waaw loolu lu muy wone mooy ni que liggéey de sensibilisation bi ñu nekk di def tra dispositif Frontex yi ak kii mais surtout euh, tey doomu sénégalais yi ñu ngi commencé yeewu di xam ni li ñu yaakaaroon Europe li ñu yaakaaroon Espagne nekkatul. Hmm. di yaakaar ni que buñ fa demee rek dañu tekki nekkatul da yaakaar naa ni tey doomu Sénégal yi yeewu nañu ci loolu te ñu ngi bàyyi xel léegi ci loolu loolu bokk na li tax bii paa lim boobu dégguñu ci doomu Sénégal. jëm euh, ci migration euh, du rek Afrique la concerné dëkk yëpp la concerné mais tey dafa mel ni Afrique rek moo ci gën a lor am loraange. waaw xam nga loolu ñun tout le temps dañ koy naxarlu te jooy nañ ko wax nañ ko fu nekk nee nañu wàllum immigration bi il faut ñu toog waxtaane ko. Mhm. Euh, acteurs yëpp maanaam état ñoom ñooy agir ñoom ñoo yore pouvoir bi ñoom ñooy agir acteurs yi ñun dañu siy saytu dañ ciy dox dañ siy waslu àq ak ñiy dem dañu war a ñun ñëpp toog xool ban solution lañ si war a mën am parce que yi ñu ngi dem di doomu américain yi ñu ngi dem di ñëw doomu asiatique yi ñu ngi dem di ñëw lan moo tax doomu africain yi ñu dem di ñëw donc xam na benn problème boo xam ne problématique la boo xam ne il faut que ñu toogee waxtaane ko pour ñun ñëpp ñu mun ko saafara ñun ñëpp ñu mun ci euh, solution. Mm-hmm. tey justement ci solution yooyu le visa yi wax nga ko euh, ñu nekk Europe ak yeneen i dëkk euh, yu bokkul Afrique mën nañoo dem di ñëw mais Afrique pour nga jóge fi di wutal yi yeneen dëkk yi nekk Europe wala yeneen day métti tey ci wàllum visa lan lañ ci mën a jàpp. ci wàllum visa xam nga lan laa leen mën a wax. Mm. ñu may déglu nañ dugg léegi ci bi ñu xool ko. jamono bu ñu toll nii nii nii te boo bëggoon rendez-vous. Mhm. pour wuti visa ambassade de France munoo ko am. système informatique bi dañ ko bloqué. te muy service public. yow nga bëgg a rendez rek waxuma la nag kayit yi ngay laajte coono bi ñu lay laajte li ñu lay fayee ko ci visa loolu waxul leneen la. Mhm. loolu dama ko jël teg ko fële. Mhm. mais rien que pour nga laajte rendez-vous rek pour am rendez-vous rek problème la. loolu nag sunu njiit yi dañ ci war a wax nag loolu dañ ci war a mën a jug. Euh, am na yenn loo xam ne ça relève euh, relève des pouvoirs politiques des pouvoirs consulaires loolu dañ ci war a waxtaane xam nga hmm. euh, visa it la boo xam ne ñëpp dañ ko war a am hmm. boo remplir les conditions yi mais même boo remplir les yi si ay jafe-jafe ngay nekk pour am ko te loolu mooy tax lu ngay dem ngay ñëw loolu day encouragé xale yu ñu jël yoonu mbëkk mi rek tey ndax autorité yi gis nga si ñoom volonté teg politique gu ñoŋ Euh, maanaam évoluer daal parce que nag yàgg na boobaak léegi ñuy coone politiku u euh, migratoire bi dara baaxut ci waaw gis ñu waxante dëgg hmm. dëgg moo am na ay jéego yuñ si am yuñ si def am na si. Hmm. mais dëgg-dëgg mooy ni que dañu war toog ak si ay seen naataangoo européen ci biir ay bët ñu waxante dëgg. Hmm. européen bu ñu fi waree ñëw ni ñu bëgg a ñëwee ñun tam dañu war a dem foofu ni ñu fa war a demee. Hmm. tant que problème boobu réglé wuñ ko problème day des dem ak dikk bi dafa war a kii yembani. waxuma nag Afrique yëpp dem Europe. mais gis nga buñ ci tegee liñ ci war a teg ubbee ko ñu ko war a ubbee waruñu sonn sonn pour dem pour Mm-hmm. dem ak dikk bi moom war nañu toog waxtaan ko Union africaine dañu war a toog ak seen naataango actuellement ñu ngi foofu G7 ni ñuy waxee waxu Ukraine euh, waxu yeneen dëkk yi noonu la ñu war a mën a toog waxe waxu immigration bi tamit. waaw tey euh, ndax gis nga ci euh, justement ci wàllum traitement information jëm ci migration ndax am na évolution. waaw am na évolution bu léger ah il faut le reconnaître tamit nit du xalaat rek nga war a def li ci nekk tamit da nga ko siy wax boo gisee li am euh, Nelly Dia ay doomu Sénégal bokkuñu si travail de sensibilisation dispositif sécurité tax na ni loolu amu si. Hmm. waaye nag bu ñu réeree mbir mi hmm. ah ñu ngi dugg si nawet te période bi période gaal la bu ñu bu ñu nëbbut mën na am accalmie la woon rek dafa daloon tuuti rek période bi mën na jug nañu nañu yokk waxtaan bi yokk sensibiliser xale yi xale yi gën a yeewu ni que jàpp ni ko Europe bi ñu jàpp ni que yëpp fa la nekk du foofu que réew mi ñoom ñoo ko war a mën a tabax ñoom ñoo war a mën a développer réew bi ñu gëm seen réew toog seen réew liggéey seen réew ñu faciliter leen tamit ñu am liggéey ci biir réew mi ñu faciliter koom réew mi koom réew mi mën a saa suuxat nit yi toog ci biir réew mi tey gis nañ tamit ay politique de réinsertion euh, ndax yéen jàpp ngeen ne euh, ñiy dem dellu siwaat maanaam doxul ñu dellu siwaat euh, ñu ngi leen di ubbil bunt yi ci mim réew waaw xam nga politique insertion boobu ngay wax man tout le temps dama am lenn loo xam ne dam ko siy wax hmm. dañ ko war a saytuwaat mais boo si waxee rek ñu indi la ay jafe-jafe hmm. am nañ fi suñu benn naataango bu mos a kàddu di wax li jëm si loolu gis ngeen fi mu mujjee donc xam nga ni yooyu dañ koy moytu. non xam ñëpp xam nañ ci may wax. Ah. ñëpp xam nañu ki may wax donc genre laajte yooyu boo ko laajtee ni ñu ko war a jëlee toppatoo ko exploité ko noonu noonu lañ koy toppatoowee. Mhm. donc dañu war a saytu politique insertion boobu ndax ni ñu ko bindee ci kii ni ñu ko yaakaaree ndax noonu lay amee. mu am tamit euh, en tant qu'acteur lu xew ci àdduna bi muy la xew ca Ukraine tey jii justement ay doomu Ukraine yu bëri ay milliers ñuy bàyyee ko foofu di wutali Europe euh, ban commentaire justement nga ciy def. waaw euh, wax ji fa la leere euh, ni ñuy traité dossier bi foofu foofu rek mooy wane ni que euh, dafa am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey parce que ñoom bu ñu xoolee ni ñooñu ay tubaab lañu si si ñetti weer mën nañu régler seen problème doomu Ukraine nii mën a dugg biir Europe nu leen neexee def nu leen neexee te ñun suñu doom yi ñu ngi fii si Maroc si Ceuta si Melilla léegi mu def lu ëpp ñaar fukki at ak lu teg ñu solution problème boobu loolu mooy sa doom recours. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Souleymane Diallo. waa kan jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. voilà merci beaucoup.